amee ñaari rakk ñu digalal ko toog taaye mu fàtte ko jóg ba nga xamee ni ay loxoom ak ay bëtiwoom dara looltu ci suuf dañ ko wax ne ko jàllal ko defee nag mu xam ni bàyyi na taaye digg ñu digal ko sujjóot xabla salaam fu ñu ko digale biral ni ki ñaar rakk yu njëkk ci timis wala ñaar rakk yu njëkk ci gee wala ñaar rakk yu suba moom nag mu juum ba yelu kon daamal ne ku wàññi kon nañ koy digal xabla salaam allahu akbar bu ne boo weesoo bi ngay njëkk a wax allahu akbar bu ne sunna la te fet li ko boole ca bu ci bàyyee benn du jar a sujjóotal bu ko sujjóotalee sax julli nga yàqu waaye nag bu bàyyee ñaari allahu akbar mbaalu ko ëpp kon na sujjóot xabla salaam mooy aw tarki takki bi rëy ni wala bàyyi ñaari allahu akbar aw in xadima wala ndem ñàkk na tashahuday yaari taayaam ya aw juloosan wala ab jataay laxumaa ñeel leen ñoom ñaar su fekkee ne itam julli ga yaari taay yépp la bàyyi tawu ca benn yoon dañ koy digal kon sujjóot xabla salaam su fekkee ne itam dafa bàyyi jataayi taaye ya daa mel ne nag saa yu bàyyee jataay taayi rek bàyyiwaale taaye ja boo weesu na nga xam ne ne su bàyyee jëmmi ñaari taay yi moom mën naa mu toog diir boo xam ne taay xaj na ca te taxul mu taaya waaye saa yu bàyyee jataay rek moom faw rek mu bàyyiwaale taaya ya mënees na takk rek ne taaya bu ne akub jataayam sunna yu fetliku lañ saa yu bàyyee taay rek moo xam ju jëkk jee moo xam ju mujj jee na sujjóot xabla salaam ñu bañ a fàtte ne su amee ñaari rakk ñu digaloon ko toog taaya su xasee jóg rek ba ay loxoom ak ay bëti woomam loolatu suuf na jàll rek te bañ a dellu si wax ji gën a wër nag mooy bu dellusee toog taaya itam du tax julli ga yàqu am na sax ñu wax yàqu ga waaye wax ji gën a wër mooy du yàqu day sujjóot rek ba de salaam ñi nga xam ne nag ñu ànd ak ku leen di jiite li ci ëpp dañuy gaawantu tey jiite bu amee ñaar ràkka fàtte ko ba jóg du tey ñoom ñu toog di ko wax subhanallah subhanallah ñu xam ne nag foofu desu ko sàbbaal bu amee ñaar ràkk daal fàtte taay taaye digg bañ gis ne jóg na ba ay loxoom ak ay bëti moom dara laalutu ca suuf dañ koy fekk rek te bañ koo sàbbaal moom itam nag buñ ko sàbbaalee bu mu juum tax ko dellu ci toog taaya na xam la mu def noonu la war a def bàyyi rek ñoom ñi fekk si ko wa in yakun ndeem dana nekk zeydu ndolleen wa naqsun ak wàññi xàllaa di wàcc ñoom ñaar waxa lépp kon na nga notal an nuqsaana wàññi ga was cutti nga sujjóot xablan njëkk sëlmal xabla salaam moom njëkk sëlmal lay firi saa yu ko déggee rek mooy kooko daa juum wàññi ca julli ga ñu digal ko bu jullee ba ràkka ya mat mu taaye ba taaye ji mat laata muy wax asalaamaaleykum mu sujjóot ñaari sujjóot ni baa mu waat taaye ja door a sëlmal loolu mooy xabla salaam foo ko fi déggee su wàññee nag wàññi kese mooy li nga weesu xabla salaam boobu lay def fi mu toll ci way gi nag mooy bu fekkee dafa dolli ci wet wàññi ci wet mel ni am ràkk boo xam ne jàngu ci aw saar ba noppi tam nag yokk ab ràkka fekkee yokk na ci ràkk yi julli ga ab ràkka ba ab ponk sax ni ki rukkoo ñaari yoon ba sujjóot ñaari yoon ba noppi nag fàtte jàng aw saar ci ràkk bu njëkk mbaa bu ñaareel kon yokk na ci wet wàññi na ci wet duy ëppal doole wàññi ga daal di sujjóot xabla salaam te bañ a sujjóot ba'da salaam wa in takun ndéem dafa nekk tamahadat di sell ziyaadatu ndolleen fas jot na nga sujjóot laxaa ñeel ko ba'da wafal xibaadati ci gannaaw matale jaamu yàlla ga jaamu yàlla ga mooy julli ga su fekkee daa juum nag ba yokku ca julli ga waaye yokkub kese la wàññi bokku ca yokk dong dong la mel ne mu yokk ab rukkoo mbaab sujjóot mbaab rakkab lëm yooyu yëpp day sujjoot baxda salaam baxda salaam day firi gannaaw salmal mooy su jullee ba julli gi mat ba mu wax asalaamaaleykum ba noppi daal di sujjoot nag ñaari sujjoot dellu baamuwaat taaya ja baamuwaat ba tey salmal ba loolu moo tudd baxda salaam mu misaale ko kal jëhri ni ki biral fi sirri ci yelu fu ñu ko digal yelu ni ki tisbaar bu fa waxee ci kaw rek day mel ne ku yokk kon day sujjoot baxda salaam wata si ji ak boo dolli woon wëkk nañ ponk wata si ji way wee tax waaye mel ne amul lu ko war a def noonu xanaa boo nattalee wa in gannaaw waaw nga nattale fi in ci zahir daal mel ne amul lu ko war a melal noonu waaye loolu daa bari ci wayam yi daa wax ne boo juumee ba yokk ab ràkka dikki ab rukkoo mbaa sujjóot kon ngay sujjóot ba xadda salaam wa shekki ak sikki sàkk fil itmaami ca matal julli ga aw fil xadadi wala ci lim ba booy sikki sàkk julli gi mat naa matut da ngay jàpp ne matut daal def ba mu wóor ne mat naa boo sëlmalee nag ñu digal la nga sujjóot ba xadda salaam ndax toroxale ko saytaane ba tey booy sikki sàkk ci limu ràkk ya nga julli mel ni ngay sikki sàkk ba xam benn ràkk nga julli wala ñaar wala ñaar wala ñett wala ñett wala ñeent da ngay jàpp la gën a néew te gën a wóor daal di jàll àggale ba noppi nag boo sulmalee ñu digal la nga sujjóot bax de salaam mu ne booy sikki sàkk benn ràkk nga julli wala ñaar da ngay jàpp ne benn nga julli booy sikki sàkk ñaaram ñett ngay jàpp ne ñaar nga julli jàll nag ba mat boo sëlmalee sujjóot bax de salaam wal akli ak lekk ga wa shurbi ak naan ga wa nafxin akuk wal xàlla goog néew na xàlla goog néew na day mel ni dellu ci nafxin kese waaye ceet yëpp lay delloo saa yu dee julli lekk-lekk goo xam ne bariwut te tëyu ko wala mu naan naan goo xam ne bariwut te tëyu ko wala mu julli ëf ak gimiñam ëf goo xam ne bariwut te itam tëyu ko yooyu yëpp loo ci xam ne daa beru di leen dong da koy sujjóotal rek bax de salaam mu daal di doy li ki muy julli tib benn tib sàqami ko wan na waaye tëwu ko julli ga du yàqu day sujjóot rek bax de salaam waxam na ne moom bu ko tayee moom lu mu lekk lu mu néew néew julli ga yàqu waaye itam la mu doon doon njuumte bu lekk ga baree daal di yàq julli ga naan gi noonu la bu naanee tuuti moo xam ndox la moo xam soow la moo xam leneen la waaye tuuti la te tëyu ko day sujjóot rek bax de salaam su ko teyee lu mu néew néew julli ga yàqu su fekkee tewu ko waaye lam naan bari na it julli ga yàqu ba tey julli ëf ak gémmiñam it su néewee te tewu ko mel ni ëf benn yoon ba ñaar rek day sujjóot baxande salaam waaye du yàqu waaye su baree rek la muy doon doon njuumte du tee julli ga yàqu wal xaw yi ak wàccu wàccu dañoo waxoon ne lay tee mu yàq julli mooy wàccu ma bañ a soppiku nga xam ne nañu ma meloon rek la mel bi mu koy wàccu wàccu mu laab la tawit moom teyu ko da ko rëcc mbaa mu juum rek tayit wënnaatu ci dara ci gannaaw bi mu agsee ca gimiñam nga xam ne bu ci wanaatoon dara rek ci tey julli ga yàqu su fekkoon wàccu ma soppiku it julli ga yàqu fekkoon na it dafa yàgg ca wàccu ga it julli ga yàqu ni waxe nag mooy bu fekkee ne li yàq julli ga amu ca kon na sujjóot baxda salaam wa taslimi ak sëlmal ga sax woon ci njuumte kullan mbir mu muy képp ci yooyu kullan daa dellu ci yow moyeesu yépp tàmbalee ci wal akli wa shurbi ba ci wa taslimi day wax ne wax assalaamu alaykum goo xam ne fekkul julli ga mat waaye njuumte rek ko waral moom it dañ koy sujootal ba xadda salaam ab yokk lay doon saa yoo salmalee ci sa julli te fekk julli gi matut waaye njuumte rek tax da ngay daal di àggale julli gi ba noppi nag sujoot ba xadda salaam su dee sikki sàkk nag ndax julli gi mat na wala matut ba noppi nag wax asalaamaaleykum moom julli ko day yàqu ndax dañ ko waxoon ne ko booy sikki sàkk mat naa matut da ngay jàpp la gën a wóor mooy matut awistawa wala mu yemoo baada sin tay ni ci gannaaw ñaari rakka sama jàlla sa topp mu toog su amee ñaari rakka ñu diggaloon ko toog taayu taayu digg moo nag mu fàtte ko jóg jëm ci ràkkab ñetteel dañoo waxoon ne ndegam ay loxoom ak ay bëtiwoomam laalutu suuf na jàll rek jàpp ne bàyyi na taayu digg te su jóot xablu salaam moom nag moom nag mu dem ba taxaw jonn te teew ko dellu ci taaya taaya ja door a jàll àggale julli ga wax ja gën a wóor mooy julli ga du yàqu day sujjóot rek baxde salaam aw xadd xakasa wala mu safaane fi maxallaatil xiyaami ci béréb bi jóg foo xam ne dañ ko digaloon mu bañ faa toog bu fa toogee rek ci njuumte ni ki benn ràkk du béréb bu toogaay ñetteelu ràkk bu fekkee lu timis ba tey du béréb bu toogaay su toogee fu mel noonu ngir njuumte nag kon na sujjóot baxde salaam ndax ab yokk lañ koy jàppee wala sujjóoda déet sujjóot mujj si ummi aju doy xamma walis la nga xam ne wajaba war na wala xafiifi sunnatin du caa génnu aji waye fi sunna aw mustahabin wala lu ñu sopp lépp loo xam ne farata la soo ko bàyyee moom faaw danga koy indi rek waaye sujjóot mënu koo defar su fekkee ne dabaatal ga wéyut mooy def ga wéyut nga def ko su fekkee dabaatal ga wéy na da ngay julliwaat waaye sujjóot mënu koo defar boo fàtte woon a jàng faatiha kon dem ba sëgg diri koo door koo fàttaliku da ngay siggi taxaw daal di jàng faatiha door a ñëwaat ci rukkoo bi soo fàtte woon rukkoo it dem bay sujjóot door a fàttaliku ne yow kat rukkoo da ngay daal delluwaat taxaw boo taxawee ñu sopp nga baamu dara ci njàng ma la gën nag moom bañ a doon faatiha ja te doon ca saar wa ndax faatiha taamuñ ko ko jàng yaari woon ci benn ràkka kon léegi ba ngay sujjóot fàttaliku ne rukkoo ñun la dellu ci taxawaay ba dañoo bëgg boo delloo ci taxawaay ba nga jàngaat lu bokk ci alxuraan lu bokkut ak faatiha doora def na rukkoo bi nga fàtte woon boo fàttee benn sujjóot mbaa ñaar it noonu la moom daal lépp loo fàtte rek saa yoo ko fàttalikoo da nga koy def ndegam dabaatal ga wéyut lay tax dabaatal ga wéyu nag mooy weesu nga ràkka booba ba jàll ca ba ca topp ba rukkoo ca ba siggi ràkk ba sës ca booba boo demee ba rukkoo ca ba siggi rek farata joo fàtte woon ci ràkk ba ko jiitu doo ko mën a defati da ngay jàpp ne boobu ràkk bokkatul ci julli gi nga weccee ko beneen ba tey nag ràkk ba nga xam ne moo mujj ci julli gi moom boo ci bàyyee farata lay tey nga mën koo defar mooy nga wax asalaamaaleykum joo xam ne dangaa jàpp ne julli gi mat na ràkk ba ci mujj boo ci bàyyee farata dem ba wax asalaamaaleykum joo xam ne booba jàppoon nga ne julli gi mat na kooku moom farata ja nga bàyyi ci ràkk bu mujj boobee doo ko def moom dong dabaatal gi wéy na da ngay julli ab ràkk mu wecc booba jëmmi ab ràkk ci bopp lëm ngay indi yi mu wax yépp nag boo fàttalikoo farata ja nga fàtte woon ba def ko boo sëlmalee na nga sujjóot ba xaddi salaam ndax li céet boo ko seetloo dana di am yokk goo yokk ca biir rawante na nag la nga fàtte woon mënuñu koo dabaatal ba nga far indi ab rakkam wecc booba ndoo leen dëgg dëgg la doon lu set wecc su boobaa kon na nga sujjóot ba xaddi salaam li mu ne wala xafiifi sunnatin soo bàyyee sunna su woyof man ngaa takk lañ la waxoon ne la sunna bu dëgër sax boo ko bàyyee tamit benn dong kenn du ko sujjóotal lu may nag muy yelu mbaa bëral yelu mbaa bëral moom ku ci nekk kenn la te doo te boo ko bàyyee fa mu dëkk defoo ko fa daañu la digal sujjóot waaye jàppal ne bàyyi benn sunna dong moom du tax a sujjóot benn yoon boo xasee teg fee yeloo bëral bàyyi ngëneel itam mel ni xunóot ak mbooleem yi nga waxoon ni ngëneel lañ ci julli bàyyi ca lenn du tax a sujjóot boo taxee sujjóot rek far julli ga yàqu benn sunna sax bu fekkee du yàllu mbaa du bëral bu la taxee sujjóot rek julli ga yàqu wayes julli dana sujjóot alxabli sujjóotub xabla maxal imaam yi ànd ilimaan ba man ka nga xam ne adraka jot na adraka arrak xata rakka ba bit tamaami ca mat ga wa axarate mu yéexe albaadiya sujjóotub baxda ba mutlaxan ak nu mën di demee maanaam moo xam am na lu matub rakk ci limaan wala déet muy mutlaxan ajal waaw soo àndee ku lay jiite bu dee sujjóot xabla salaam te fekk mu raw la tutee da ngay ànd ak moom def xabla salaam ba ndegam xës nga am ci julleem lu mat benn ràkk rek bu sujjóot xabla salaam nga ànd ak moom dañoo waxoon nag ne su fekkee amoo julleem lu mat ab ràkk moom bu dee sujjóot xabla mbaa bax da saw yoon nekku ca boo ko teyee mbaa nga umpale ba defandoo ko moom mbaa nga def ko ci gannaaw ba rek sa julli yàqu bu dee njuumtee tax waxoon ne ni moom du yàqu fi mu toll fii nag mooy ndegam fekk nga ci julleem lu mat benn ràkk bu ilimaan dee sujjóot xabla salaam dangay ànd ak moom def ko bu dee sujjóot ba xam salaam nag ndegam dalaa raw nga bàyyi ba fay lam la rawee ba noppi nag door a def yow ba xadda salaam wa in yu xaalif ndéem dafa juyoonte fihima ci yooyu yaar xam nañ ci ak tey batala kon mu yàqu dañ ko joxoon ndigalul ilimaan raw na la waaye yow fekk nga ci julleem lu mat benn rakka kon nag bu dee sujjóot xabla salaam àndal ak moom bu dee sujjóot baxde salaam nga bàyyi ba fay ba noppi mu ne nag bu defut loolu ak julleem yàqu nekk ilimaan day def xabla ñu digal ko mu ànd ak moom defandoo ko ak moom mu bañ a ànd ak moom def ko kon su ko teyee mbaa ñàkk xam waral ko julli gi day yàqu ba tey biñ ko nee baxadi salaam bu ko ilimaan dee def bul ànd ak moom da ngay bàyyi ba fay ba noppi door koo def moom nag mu tey ko ànd ilimaan def ko te fekk fayagut lañ ko rawe mbaa ñàkk xama tax ak julleem day yàqu bu ko defoon ngir njuumte nag moom ñu ko waxe woon ci gannaaw julli ga du yàqu wa kullu ma lépp loo xam ne sahaahu juum na ko xaalul qudwati ci waxtu roy wa ci waxtu roy wa yaxmiluhu dana ko yanu imaamuhu ilimaanam ba muy sunnatin te fekk muy sunna jum man di doon ki lay jiite moom boo xasee ànd ak moom ba am ci julleem lu matub ràkka xamal ne kon yow itam nag la nga ànd ak moom boo ca juumee ba bàyyi ca loo xam ne bu doon ñëw dong ñu digal la ca nga sujjóot ilimaan gàddu na ko du aajowoo nga di ko sujjóotal mel ne nga ànd ak ilimaan te waxoo allahu akbar lu mat ñaari yoon mbaalu ko ëpp bu doon sa julli yow dong ñu digal la nga sujjóot xabla salaam ndax loolu wàññi la waaye nag ndegam ilimaan nga àndal ca booba ilimaan gàddu na ko la nga ànd ak moom dong nag lay gàddu bu la rawoon nga jóg bay fay ba ngay fay nag saa yoo defee lu ñuy digle ku ci sujjóot xabla salaam ba baxdu salaam def ko te xam ne ilimaan gàdduwu ko la nga ànd ak moom rek la la gàddul wa kullu sahwin bépp jamooj xad dina sala ba wàcc na bil imaam yi ci ilmaan ba yet ba am xoo dana ko topp ma moomuhoo maamoomam ma wala faxala ak doonte defoon na ko moom maamoom boo xasee am julli ilimaan lu mat benn rakk rek jeex na niñ ko waxe woon léegi sujoot bi ñu ko digal rek digal na ko yow itam doonte sax ba ilimaan di juum juumte boobu fekki woo ko daa bokk ci lam la rawee mbaa moom mu juum ca te juumoo ja du ci dara ndegam am nga julleem lu mat ab ràkk rek sujoot bi ñu ko digal digal na ko yow itam walam yàqum sañuta jóg nag yàqul di di fay ëllës yi la nga xam ne xadd faatuxoo rawoon na ko xataa yëf yi mbate matale imaamuhu ilimaanam ba salaatahu julleem nga mooy nag bu la ilimaan rawee faaw nga bàyyi ba ilimaan sëlmal nga door a fay lam la rawee dañuy bañ imaan di nekk bu yéex ak julli mu rawe la benn rakk bi nga ñëwee ba ànd ak moom nag ngay naan naa daal di gaaw def li mu rawee ànd ak moom fekk ko fa mu toll su sëlmalee du jar may def la ma rawoon loolu du baax araam na ngay fay la la ilimaan rawe ci biir julli ilimaan maanaam ilimaan sëlmala gut ngay fay lam rawe woon loolu lu araam la faaw rek nga bàyyi ba ilimaan sëlmal nga door a fay lam la rawe woon waqaama jóg na bi takk biri ànd ak kàbbar mudrikul imaami aji jot ilimaan ba fii rak xatee ni ñaari rakka aw tashahudi salaami wala taaye sëlmal ga wa mudrikun aj jot nag talaasat ñett rakka aw waaxidatin wala benn yaqum day jóg rek bi xëyri takbiirin ci lulul kabar xul jàppal faidatan njariñ balaa bëgg a takkal li ñuy wax naa boo àndeek ilimaan ba mu sëlmal te fekk mu raw la soo jógee ba taxaw gannaaw ba mu sëlmalee soo jógee ba taxaw dangay wax allahu kubar door tàmbalee jàng faatiha ak boo wax allahu kubar dangay jekki-jekki tàmbalee jàng faatiha mu takk mu ne nag takk-takk bi mooy su fekkee ne julli ilimaan ba fekkiwoo ci sax lu mat benn ràkk nga xam ne taay ji rek jëcc mujj nga ko fekk waa amoo ci lu matub ràkka wala nga xam ne fekk nga julleem ñaar rakk rek yem ci ëpp ko yeesu ko yooyu yaar daal su ilimaan sëlmalee ba nga jóg ba taxaw da ngay wax allahu akbar door a tàmbalee jàng faatiha waaye lu bokk te yooyu yaar rek bu ilimaan sëlmalee ba nga jóg ba taxaw da ngay jekki-jekki tàmbalee jàng faatiha te bañ a wax allahu akbar loolu nag mooy julleem fekk nga ca benn rakk doom matul ñaar mbaa fekk nga ca ñett nga xam ne ëpp na ñaar mu ilimaan sëlmalee ba nga jóg ba taxaw daal foofu bul wax allahu akbar da ngay jekki-jekki tàmbalee jàng faatiha baabu nawaafili li mooy buntub àtteey naafile ya xeeti naafile yi wa sujoodi tilaawati ak sujootu jàng alquran day wax ci bunt bi nag lan mooy àtte yi naafile yi ak lan mooy àtte sujootu alquran ak yan béréb ci alquran la ñuy digle ku ca sujoot wa yun dëbu def na sopp an naflu naafila fa waawit kon na nga taqoo fi'lahu ak defam naafila ci ràkka sopp nañ ko ci wépp waxtu woo xam ne aayowuñu ca naafila weesu woon na ci gannaaw waxtu yoo xam ne dañ ca araamal naafila ak yoo xam dañ ko ca sib waxtu yu bokk te yooyu nag saa yoo sawaree rek sopp nañ nga naafila li mu ràkka yoo mën gën gaa néew ñaar mu wax nag yenn yi nga xam ne ñoo gën a ràññiku ka ba'di zuhrin niki gannaaw tisbaar arbaxan ñeent wa qablahu ak ci ak jëkkam ka qabli xasrin niki njëkk takkusaan bokk na ci naafile yi feddli ko ñu sopp leen lool bala ngaa julli tisbaar naafila ñeent rakka ñaar sëlmal ñaar sëlmal boo jullee tisbaar ba àggalit naafila ñeent ñaar sëlmal ñaar sëlmal am na addis bu ne man xaafada xala arbaxi rakahaatin qabla duhri wa arbaxin ba'dahu xaramahu llahu xala naar nga xool nag ba adahoo jooju bu fekkee ak zuhur lañ cee jublu salaatu zuhuri kon ba adaxaa mooy yelloog moom ci zahir buñ jubloo nag ak zuhuru jublu ci waxtu tisbaar yi rek moom mu zakkar lay doon ba adahoo mooy yelloog moom ñu xoolaat ci addis bi ba xam nuñ ko fa indee ci takk mu ne ku sàmmoon teeg bala ngaa julli tisbaar naafila ñeent ñaar sëlmal ñaar sëlmal gannaaw tisbaar it naafila ñeent ñaar sëlmal ñaar sëlmal yàlla araamal sa yaram ci sawara ba tey takkusaan bala nga ko julli sopp nañ naafila ñeent ràkka ñaar sëlmal ñaar sëlmal addis ba nee na رحم الله امرأ صلى قبل الحصر أربعة كيب كو خامني نافلا nga ñent rak ñëk takusan yalla la yalla doli yermande te ñaanu wonte bi mom duñu nangu lay doon waaye bu fàtte ni fu mu ci mën doon rek day fekk waxtu wa yaatu nga xam loolu xaj na ca waaye bu waxtu waxatee rek naafila daldi araam sidduhu na nga ko dolli moom naafila baxdal maxribi ci gannaaw timis gannaaw timis sopp nañu naafila gën gaa néew ñaari rakka suñ mag bi daana digle ku sëlmal timis julli ñaari rakka rakka bu jëkk faatihaak qul yaa alkaafiroon rakkab ñaareel fatiha qul huwallahu ahad ñu wax nag juróom benn rakk moo ci gën a mat ci gannaaw timis addis bi daa wax ne man salla baadal maghribi sitta rakaxaat lam yatakallam baynahunna bi suu in xaddal na lahu xibadatas na tey xashrata sana wa fi riwayatin xufirat zunubuhu wa in kaanat misle zabadil baxra ku julli naafila gannaaw timis juróom benn rakka te diggante bu waxu fa benn baat bu aay day mel ne kon jaamu na yàlla fukki at ak ñaar jaamu yàlla gu mat gu rafet dana nett li ne kon ñu jégal ko ay bakkaaram doonte daa toll ne puuriti géej farax it na nga ko xemam loo nag moom naafila xabal xishaaj njëkk gee wa ba'daha ak ci gannaawam sopp nañu lool naafila bala ngaa julli gee ak gannaaw boo jullee gee ba noppi bala ngaa julli gee moom gën gaa néew ñaar rakk loo ci yokk baax na gannaaw gee nag moom gën gaa néew safaak wetar soo ko mënee def nag fukki rakk ak ñaar ak wetar ni nga koy defee ci weeru koor wi wala ciy gën duhan ak yoor yoor julli yoor yoor naafila la guñu sopp lool lool sopp gu feddliko feddliko waxtoo mi ngi tàmbalee ci saa yu naafila daganee rek ba tisbaar jot